lula neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko salaamaaleykum mbokki internautes yi ñu ngi leen di nuyu bienvenue dans Yaay Buzz si Dakar Info net euh, tey tey ñu am nag mbégte dalal ndaanaan si biir ndaanaan yi c'est un jeune euh, talentueux l'homme à la voix suave une très belle voix euh, une voix mélodieuse moom la ñu invité tey kan la du ma leen wax turam dama leen di bàyyi rek mu nuyu sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ñu ngi si GRM groupe Rasoul Média nekk si Dakar Info point net c'est parti Sidna Mohamed avec l'invité. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Julli ci Yonent bi. Julli ci Muhammad. Waila warnama Bakla warnama Muhammad Gañla warnama Jiinla warnama Yàlla ko njëkk a sargal xoolal ci suuratu Yaasin Muhammad moo tax ñu sàkk noo lépp luy leer Muhammad ci yow mi la leere lépp luy leer Muhammad ci yow mi la leere ndax sa leer la ñu bindee ci sa leer la ñuy noyee sa leer la bindee ci sa leer la doxee sangu sangu yaa ngi yaa rasulallah geru geru ñaa ngi yaa habiballah weru weru yaa ngi yaa rasulallah mani jantu jantu yaa ngi rasulallah muhammadu tax ñu sàkk noo Vous l'avez reconnu, son nom c'est Diaw Diop Didi Didi euh, scène euh, Melody Band et l'invité de ce soir en tout cas c'est notre invité euh, sur dans Yaay Buzz hein, sur Dakarinfo.net ñuy jaajëfal bu baax a baax nag soppe yi nga xam ñu ngi bàyyi xel euh, Didi il fait le buzz luccum luccum daañu si ñëw mais maa ngi lay nuyu gannaaw bi ma la waxee salaamaaleykum ma bàyyi la nga nuyu nos internautes. maaleykum salaam sama grand waxu di la nuyu di kontaan trop ci invitation bi di nuyu ñi nga xamante ni tey ñu ngi seetaan euh, di am kontante ci teew fi tey pour fas yéene jàkkaarloo ak ñu amul waxtaan. waxtaan waxtaanee ko rek comme ni ñu ko doon defee donc si ndorteel bi si si si ba ngay door euh, lan moo la wayloo euh, xam naa ne ku bëgg way nga mais xaw ma lu la wayloo lu la wayloo. ah je pense que li ma wayloo yëg-yëg la. li ma wayloo mooy passion la. li ma woyloo mooy loo xamante ni dafa yàgg nelaw ci man cest di dire moo ma woyloo don parce que dama nekk xale bi ma xamulee dara lu ma dégg di ko toppandoo mm-hmm. woy bu ma dégg rek dama ci topp euh, je me rappelle même bi may nekk xale film indo yi ñu doon teg sax woy yi ñu ci daan teg je j'arrivais à parkeriser même si je comprenais pas et je reprenais ba même bu ma nekkoon école sama directeur des fois bu daan def récréation maa ngi nekk primaire daf ma daan may cent francs ok ma toog di ko ay yooyu indo mais loolu dafa dafa dafa dafa bokk si yow est-ce que moo tax nga sentimental c'est-à-dire voilà donc dañu gis ni euh, euh, euh, sa voix bi dafa mélodieuse donc voilà la am na lu mu def si yow quand même. waaw ouais, parce que man la musique selon moi c'est juste question de feeling. feeling sensation lay doon c'est-à-dire man quand je chante. je me fais plaisir moi-même waaw du feeling lay doon même même bu dara xewul ah mhm. su may toog di wayantu rek wala di déglu musique day am fu ma yóbbu fu may transporter waaw ah, et je pense que du gaay naan ma tu as la tu as la voix mhm. euh, nii lay wooy Mr Melody et tu passes tout ton temps à chantonner à chantonner du hasard du hasard tey euh, say début euh, c'est vrai da nga doon Euh, euh, chantonné mm. mais nag euh, commencé nga ko commencé professionnel si li ngay def gis nañ la université nga nga si aussi am orchestre nga nekk lead vocal bi c'est pas facile pour un début ku mm. so commencé est-ce que foofu rek mooy sa ndorteel fan nga jaar bay commencé taxaw au devant de la scène waaw bi mu nekkee xale yi continuer di comme tout le monde jamais j'adorais souvent Euh, à tout ce qui couche touché à la commission culturelle ah, c'est-à-dire oui. Fosco dama doon nekk commission culturelle durant les grandes vacances su ma demul jàngi ji alxuraan et tout ça parfois su ma ñëwoon Dakar dama doon bokk ci les colonies de vacances ak ay projets yu mel ni Enda Croix Rouge mhm. fépp fu musique doon am daal dama ci doon bokk quoi mhm. euh, mais voilà juste à partir de 2011 parce que collège primaire lycée mhm. j'étais en guillemets la petite star j'arrivais voilà bu lu xew dañ ma yéegal wayal mhm. parce que classe tout le temps année scolaire bi yëpp dama daan wayantu ba ñoom xamoon nañ lool ci man wala buñ déggee benn way dañ ñëw ne ma wayal ma lii mhm. donc euh, après la bi ma amee bac bi may def en classe de terminale lycée ci la amoon une mission qui se passait sur la TFM. ok relève bi. relève bi waaw. Mm -hmm. un ami à moi Chaka. moo mhm. ma ci concours bi. ma dem fa ñu sélectionné ma ci ñi def casting bi y avait plus de deux mille et quelques ah, okay, mm-hmm. ma dem ci ba final donc foofu laa commencé quoi parce que bi ma dugg see ci relève bi là il fallait faire la compétition mais ñi dañ doon ñëw pour def toppandoo Adiouza numéro 2 mm-hmm. Youssou Ndour numéro 2 mm-hmm. wala nga ñëw def freestyle def sa yëfu bopp man bi mu ñëwee man leen noo man sama yëfu bopp laay def <laughs> bon donc ça m'a permis de composer parce que chaque prime dama doon composer Mhm. mu ñëw ci ba final. ma ñëw ci ba final waaw su ma déggee composition moom mooy boobu commencé nga jouer instrument wala da voix sa voix rek nga amoon. ci relève bi laa commencé jouer instrument. instrument parce que boobu sama guitare dëgërugul carrément. mais il fallait coûte que coûte euh, bu may ñëw mooy jouer donc à plaquer des accords très simples. donc mais dama doon c'est-à-dire les mélodies fredonnaient d'abord dans ma tête. ci sama bopp moom nga doon exprimer moom laay jël exprimer wu su ma ñëwee donc par exemple je compose avec des accords très simples yan ñëw comme ñëw sama réew xameetuma ko li fi xew doy na waa nañu booloo jóg te man ko amatul di toog di xaar dund bu metti bi tax ñu fépp askan bi dañ ci maar non non non dinañ ñëw si thème yi parce que loolu c'est c'est li nga si wax noonu déjà le message est fort mais euh, toujours ak mélodie. c'est-à-dire yow toujours yow dañuy yëg yow ni vraiment am na lu. parce que kenn ko expliquer. bon selon moi la musique sensation la. Mm, yëg-yëg d'abord l'expression de ses sentiments. absolument li nga yëgul pour man li nga yëgul ci sa xol mën na ko exporter pour nit ki gis ko si mm-hmm. parce que la musique day nekk benn langage. Mm-hmm. d'émotion. Mm-hmm. émotion boobu nag te quand tu parles d'émotion forcément tu penses. au cœur. absolument tey donc liy joge ci xol. donte ay nopp moo koy dégg mais ci xol lay dugg moo mooy tax nga am yëg-yëg bi ba mu li naan ndeysaan. Mhm. donc c'est pourquoi ba souvent ci sama son yu bari bien vrai que je compose des chansons de thèmes ak yeneen ak yooyu. mais souvent on me dit toi tu adores composer des chansons d'amour et quand tu le composes tu le composes bien mhm. parce que je dis que bon là je laisse juste mes sentiments j'ai l'habitude de dire que waaye su amul ndeysaan neexul moi je le dis ah parce que dama ko gëm dama gëm ni war na la euh, am lu mu lu muy def si yow voilà donc voilà loolu yàlla may na la ko mm-hmm. ku la jàngal guitare waaw après l'élève bi mm-hmm. euh, ci la amoon un cousin boo xamante ni bi may ñëw ci relève bi di keef casting bi moom moo mu doon jouer guitare Laye Bas c'est un chanteur lui aussi mm-hmm. un instrumentiste mais après bi relève bi passé bon dañ ma doon commencé woo et amoo maquette amoo dara quand tu te présentes da ngay ñëw foog nga def dara donc tu viens avec la voix nue nga ñëw mhm. moom mu doon ma accompagner guitare mais des fois daawul am jot donc man forcément il fallait que je sois indépendant ma jënd sama guitare en moins d'un mois j'arrivais à plaquer mais accords di commencer di jouer di accompagner sama bopp même su dëgërul woon mais j'arrivais à plaquer quelque accords teng teng teng son bi génn ma man ci teg sama voix et les gens ils aimaient. ils aimaient donc sama benn temps Seyna Mbow moom moom wan lan mooy doo lan mooy ree. comme ni naan njàngum gumba quoi. pa jàng ki mais ñëw doo lii la ñuy plaqué lii mooy doo li mooy ree. nga commencé li ci. am am am oreille si si si si si yi. oreille bi peut-être voilà yàggoon naa parce que bon même su fekkee daaw ma jouer instrument. amoon naa facilité mooy li ma la a à capter facilement. tey demoon naa ba mujj bu nit ki yooxoo man xam na fu ma koy xaar ni fii la war a daanoo. bi nga amee bac da nga dem fi nga xam mooy université UCAD Cheikh Anta Diop bu Dakar. Mhm. Euh, gis naa la si benn première partie daara ji. Mhm. seen orchestre ngeen joué live en direct. Mhm. à la télé euh, jàng ak musique ñu bari dañuy wax ni musique bi def lay yàqal wala dafa fiir mënoo ko boole dara euh, naka nga mën a allier les deux naka nga naka nga si génnee sax laay wax. <laughs> parce que barewuñu si génn. <laughs> bon je me dis que il faut juste savoir faire chaque chose à son temps. Mhm. gis nga tey nit ki boo bëggee dara daf lay jaral. absolument et il faut que les gens comprennent quelque chose la musique c'est une passion liggéey la whatever entreprise la mais les études c'est une obligation. absolument man je pense que tey lépp loo mën a def ci àdduna bi jàng def ci am solo. jàng ne veut pas dire forcément jàng école rek dem jàng alphabet wala yeneen yeneen mhm. la vie. tout est apprentissage. dëgg ce qui veut dire que tey man j'avais un père j'ai un père gendarme. Mhm. boo xamante ni moom. bon il badinait pas <laughs> avec les études. donc voilà pour mu mhm. continuer doon def musique il fallait que mu continuer di jàng di am yenn moyen. Mhm. bien vrai que nag je vais le dire je vais pas le cacher musique moo nekkoon di doon dominer ci sama xol. mais j'étais pas nul donc voilà euh, il me suffisait juste me concentrer wu peu de temps ci études yi. li ma soxla dinaa ko am. après je passe mhm. mais teew na bu waxtu jàngi jotee nga dem jàngi bu ma jàngee ba pare nag mhm. sëgg ci sama passion. passion bi UCAD euh, seen seen seen seen l'orchestre de l'université euh, naka nga intégré wala yéen ak ko formé euh, comment ça s'est passé. waaye parce que après relève bi. Mhm. dama commencé gàddu sama guitare am fit nag bëgg bëgg musique. waaw <laughs> ah, boobu nag day mel ne ku soogay mën a dawal oto wala dawal vélo. bien oto boo teg. bëgg bëgg musique mhm. am fit nit daf may contacter parce que boobu Facebook mu ngi jax ah. nit daf may contacter maay sa fans dama bëgg nga ñëw Mauritanie xoola ma gàddu guitare bi. <laughs> du ma sax tàggoo damay gàddu guitare bi yoxasu ni tër dem. dem sa gàddu dem même buñ ma fayul sax mais je pars. su ma ñëwee je me fais plaisir je chante ay dem ay Foundiougne ay mm-hmm. Kaolack ak fu nekk dem naa fa. Mm-hmm. dem jouer ji mais après ma commencé di jouer ndànk-ndànk ak sama guitare. Mm-hmm. par la suite ci la intégré orchestre de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. ak sama gars yi ñu ñëw benn band de copains bu ñu doon toog orchestre bi jusque gars yi. ñu ngi ko doon jël dox nañ ko étudiants yi OPI. OPI ñëw na kaas frère gaa yi jëndal ñu ay matériel ay valeur million mhm. mais donc sa c'est limité simplement répété toog bu première partie amee nga jouer après. ça s'arrêtait là-bas. Mhm. alors que man voilà avant même may intégrer orchestre bi j'avais j'avais déjà commencé la musique. dem naa ci TFM am projet. jouer live ñun di commencé moo xam et tout ça donc amoon na fu ma teg sama bët. Mhm. Euh, tu te rappelles de ton premier single. oui parce que son bi ma ñëpp xamee mooy son bi nga xamante ni jusqu'à présent je le jou les gens ils mooy son ma doon def la la la la la la la la la la la boobu laa doon jël di ko wayantu fépp fu ma doon dem moom laa defee casting bi doon ko jàngal booy yi ma doon encadré ci club anglais bi booy doon ko wayantu ba ci la ko Bouba Ndour tamit déggee. Mhm. jël ko produire Batuli ci lañ defoon publicité moustiquaire imprégné boobu ci mélodie boobu. Mhm. bon son boobu la ma ñëpp xamee woon. moom la ñëpp waaw fu mu doon dem moom laa doon joué. Mhm. en plus période boobu dama amoon une copine qui s'appelait Lala. léegi ñëpp mu coïncidé ñëpp nag. bon Anta Diémé j'étais la star de l'école ak sama copine ci école bi bu dara xewee man maay ñëw <laughs> maay way ñu naan yi moo gëlëm bi lay way lii <laughs> tout ça. ana la la. la mu ngi fii waa l'université. ñu koy merci beaucoup euh, voilà il fait le buzz son nom c'est Didi voilà Diaw Diop Didi euh, bi moom mi ngi jógee si Diaw Diop ñaari dey yi quoi. ouais parce que ci Diaw bi c'est DIA W uh-huh. Diop day yoppe donc j'ai pris les deux Didi. Didi mooy gën a facile gën a neex a prononcer ah, pour les noms sénégalais. Mm-hmm. en plus c'est un nom boo xamante ni ça plaît aux filles et ça glisse beaucoup plus facilement. on va avec le deuxième son bi nga xam yaa ñu koy proposé ban nga ñuy may donc may ko un tonneau di Euh, bon y a il y a une chanson que j'ai composée pour les étudiants. ah parce que voilà comme souvent am plateau bu may dem et cette question ne revient pas la musique les études étudiants et tout ça donc euh, gis naa artistes yu bari way nañ étudiants yi. Mhm. mais je me dis que peut-être tey yàlla def na. ni ma nekkee ba tey étudiant nekk ci biir musique bi peut-être am na ay yëg-yëg wala lu ma mën a exprimer mhm. ci beneen côté da nga ko dund dama ko dund mhm. ci beneen côté bu dul juste étudiant yow la ñu àndal yow la ñu béggee yow la ñu kii yow la ñu yaakaar voilà évidemment ok c'est parti euh, un morceau dédié aux étudiants euh, de la part de Didi voilà eh, ñuy jaajëfal étudiants yi également ñu ngi leen di béggee fu waay mën a nekk rek si Sénégal wala si àdduna di étudiant c'est parti est-ce que xam nga kii ma doon man maay étudiant bi l'avenir de demain oui nous sommes les étudiants man de xam naa ki ma doon ak ki ma war a doon yoon bi gudd sori lool taxul ma xaati benn yoon ndaxte xam naa ni askan bi ci man la nu yaa man ba may ndaw lañ ma ni woon yow de jàng mooy sa yoon jàngal bu baax ngir màgg xam màgg xam-xam lay màgg am xam-xam xam-xamay indi man man man ay indi am am est-ce que xam kii ma doon soo xamul kii ma doon te wax la kii ma doon oh oh oh, oh, oh. man de xam naa kii ma doo man maay étudiant bi askan bi ci man lañu yaakaar yaakaar oh oh oh nous savons qui nous sommes nous sommes les étudiants le peuple porte sur nous son espoir qui je suis, je te dirai qui je suis, je suis le futur de ce pays. Si tu sais pas je suis, je te dirai je suis, je suis l'avenir d'une meilleure vie. Je suis le futur président, je suis le futur magistrat, je suis le futur enseignant, je suis le futur commandant, je suis le futur Lumumba, je suis le futur Sankara. je suis le futur Mandela je le futur Cheikh Anta Cheikh Anta Diop oh oh oh ñun de xam nañ ci ñu dool étudiant yi askan bi ci ñun lañu yaakaar yaakaar oh oh oh nous savons qui nous sommes nous les étudiants Le peuple porte sur nous son espoir, son espoir. Ah ah, ah, ah, ah. ci ñun la ñu yaa Didi Diaw Diop en tout cas euh, en tout cas euh, j'ai aimé te xam naa ne vous avez aimé parce que nag wax dëgg yàlla euh, en tant en tout cas étudiants yi moom kontaan nañu mais yaayu étudiant papa étudiant kontaan nañu voilà en tout cas après l'orchestre bi nga xam mooy bu Cheikh Anta bu Dakar dama bëgg nag ñu ñëw si li nga xam na mooy sa carrière commencé nga ko avant foofu intégré nga mais yaa ngi suivre nga sa yaa ngi poursuivre li xam mooy sa carrière musicale bien sûr ñu ne Didi et le Sen Melody Band. Mm. muy sa orchestre Sen Melody Band dafa topp toujours si si li ngay def mélodie yi ngay dégager harmonie yi ngay dégager. c'est ça parce que souvent d'où le nom Mr Melody mm-hmm. li ngay woy dafa am mélodie dafa harmonie. Mm-hmm. voilà léegi euh, de ce fait ñu may woy Didi Mr Melody. voilà mhm. ci même côté boobu la jël ma garder parce que voilà mu nekk benn continuité seen mélodie band mhm. parce que voilà pourquoi mélodie band parce que selon moi la musique c'est juste la sensation l'expression de mes mélodies mhm. yi nga xamante ni tey moom moo may traversé parce que na am foo xamante ni bu ma demee ba toll fa di way euh, ce n'est plus juste que damay calculer pour way lii wala dindi li mais je laisse juste samay sensation samay feeling di ñëw donc je pense que voilà Euh, harmonie man j'adore les mélodies. waaw moo tax su ma gis. Mhm. waykat buy woy sax def ay yenn mime boo xamante ni dafa mélodique damay kontaan quoi. da ngay békk comme Wally comme Sidi Diop parfois mu def ay trucs yeah ah, parfois mu def ay mélodies yoo xamante ni waaw dama naan waaw I ah. like dafa dafa dafa dafa dafa jaadu. dafa jaadu. comment se porte seen euh, euh, mélodie band Oui, alhamdoulilah, parce que nous, depuis euh, le début, mm -hmm. c'est-à-dire on, on, on, essaye de faire notre petit bonhomme de chemin. Mm -hmm. C'est-à-dire autre chose que les gens ont l'habitude de voir dans la musique sénégalaise. Mm -hmm. tey man à un moment donné juste après relève bi bi ñu demee et tout ça on a essayé comme tout jeune il y avait le phénomène Akon donc ça a bercé ouais. tout le monde mm -hmm. donc c'était plus nous tous on se on se prenait pour des Américains. Man, je me rappelle à l'école, on m'appelait Akon mhm. parce que j'arrivais à reprendre des chansons d'Akon. Mhm. Donc ñu may woo Akon euh, ci loolu lancé boobu y a la musique mu ñëw mu bese mhm. ñëw. donc ci laa commencé di dem studio c'était plus facile. da nga dem télécharger bi ci internet bi. ga dem studio fay prise de voix dix mille francs. ñu def la benn maquette nga ñëw texte texte après voilà am nga benn son. tu balances sur YouTube Reverb Nation. pour essayer de faire la promotion toi-même mais dangay gis ni voilà ça marché pas du loolu mooy li fi nekk euh, mujj bi day tar sax doo am accès ci yenn affaire yi et tu te fatigues en plus beneen affaire loolu yaa ci dépensé mais du am benn retour amul retour donc sur ce man ni bon pourquoi pas euh, am na marché boo xamante ni peut-être fii foo nga am ku la jàppale foo kii pour mën la su joo fay la yeneen ak yeneen mais boo ko amul mais am na marché boo xam ni kenn moomu ko mm-hmm. muy lan y marché des hôtels des restos bars endroit yi nga xamante ni foofu les clients on n'a pas besoin que yow tu sois célèbre pour qu'on te prenne pour un artiste mhm. li leen mooy que tu fais de la bonne, bonne musique. donc ci idée boobu laa amoon ma mhm. ànd ak samay gars samay musicien mhm. seen mélodie bande après les gars ñu quitté le truc de l'université parce que ça n'avançait pas voilà pas quitté parce que ba tey entre Dieng et nous l'orchestre de l'université mais mu nekk benn stand-by. ñu génn ci biti ut suñu yëfu bopp. Mhm. j'ai confectionné des cartes. Mhm. dem po déposé ko ci hôtel yi. Mhm. donc ci seen mélodie band ci loolu lay ko doon continuer di def muy lan ñëw jouer def audition. ça t'intéresse tu nous cales on signe un contrat on fait des prestations tu nous en dehors de ça on anime des dîners de gala yenn réception yi yenn ONG yi yenn ambassade yi anniversaire yi yenn kii waaw boo ñu koolee ñu ñëw déplacé wu ñëw jouer leen faire de la variété mhm. ak am na ñoo xamante ni bu ñu bëggee mariage yu classe yoo xamante ni c'est pas comme ce qu'on a l'habitude de voir les jàkkaarloo et tout ça dañuy kool ñu ñëw ci salle yu classe ñu def ay son yu classe yu am maanaam mais n'empêche léegi mooy li ma la wax musique day évoluer mhm. léegi ñu ngi waajal album am benn ouverture dugg nañ ci variété bi gis nañ ni mu demee am na lu luñ ci jot jàng dañ koy jël boole ak suñu musique s'ouvrir au grand public bu laajee mbalax ñu mbalax ba mu saf. voilà yaa eh, si ñëw boo ma joxoon jàkkaarloo ma jàkkaarloo ko ba mu nekk. Ah? teewul suba bu ma fa xëy dëpp sama chapeau di la jouer ay blues ay folk yu amul fenn. ok en tout cas euh, il est prêt à tout comme ni mu wax musique lay def donc euh, tey yaay dugg si mbalax bi tey li tax ñu tam ñu teg la fi bokk na si lu cum lu cum ah <laughs> en tout cas euh, euh, gis nga xale yi gis nga mag ñi gis nga ñëpp di si jaar di ko wayaat parce que ni nga ko wayee la mm. parce que peut-être que expression yi nga jël lu cum lu cum mm-hmm. yooyu yëpp si tamit ça veut tout dire ah mën nañ ñëw tuuti si composition bi et pourquoi Euh, tey nga en tout cas da nga bëgg lu tax nga wan nga indiwaat beneen facette parce que gars yi xamoon na la si arène bi comme ni ko waxee si folk bi si si variété musicale mais si mbalax non voilà tu es venu avec un morceau mais voilà boum macha allah euh, loolu lu muy def si yow et ak orientation bu également tamit wala naka la ñëwee. waaw d'abord dama ci euh, sant yàlla parce que tey nga def dara sénégal yi jël ko adapté ko un peu partout je pense que tey voilà. laaj na liggéey. Mhm. mais aussi day fekk suñu borom teg ci loxo. Mhm. bon donc loolu d'abord dañuy delloo yépp yàlla sant suñu borom. mais léegi pour revenir ci côté composition bi bon man depuis le début. Mhm. Euh, sant yàlla quoi alhamdulilah je compose pour moi. donc aw ma difficulté pour composer. donc euh, da nga gis ba ci li ma jàng c'est-à-dire même à l'école day ñëwaat ci samay composition muy lan partir du général vers le particulier. amener le sujet. développer conclure soit nga raconter une histoire wala mu nekk benn œuvre boo xamante ni da nga koy def parce que man pour moi c'est très important mm -hmm. l'aspect artistique. parce que quoi qu'on puisse dire même li gars yi di wax way nañu na nañu sàmm mbayaan suñu culture et tout ça mais la musique c'est la musique mooy comme li may wax de copains rappeurs mën leen éviter à ce que ñu naan la way rap laay def ñi musicien mbalax man mën leen la rap de la musique c'est de la musique kenn mënu ko génne ci donc tey boo demee ba ni musique dafa am lu mu laaj parfois nag Sénégal wala yenn détail duñ ci bàyyi wala da nga gis ku wee ba jeex il tient même pas compte ci ay rimes yi ci assonance yi wala yeneen ak yeneen. Mhm. alors que c'est très important. tey mhm. musique war na am fu mu soupiré. Mhm. war na am nu mu noyyee war na am structure musique mooy ah. waral tey ci pochette album. ñu bindale kii moo composé. kii moo arrangé kii moo dara. mais du da ngay ñëw rek waaye doomu géwél yooxu fii yéegal daanu fii xamoo fooy yéegalee xamoo fooy wàccee je suis désolé mais man du loolu mooy sama perception de la musique mhm. ku nekk nag ak sa feeling mhm. parce que sensation la am na koo xam ne looloo koy daaneel mhm. na yam am na xamoo xam ne leneen moo koy daaneel dañ ci côté composition bi j'ai voulu composer une chanson d'amour mais autre que ce qu'on avait l'habitude d'entendre d'entendre muy lan il fallait ma ñëw créer ay termes yu bees il fallait ma ñëw woy mbalax mais mu doon mbalax boo xamante ni non franchement. du déranger mën nga ko dégg du la déranger te dina am ngéwale googu dina am cas googu. Mhm. maanaam dinaa Sénégal yi dinañ ci gis seen bopp. Mhm. te teewul man du dénaturer trop. li ngay def musique li may def. Mhm. parce que tey loolu mën naa ko jël moo yóbbu ko je le donne. sérieux ñu ëpp ñu ko partagé c'est des Camerounais. billaay wallaay. yëkkati seen téléphone call ma di entreprendre di teg ay projet ne ma même suñu ñëwee Sénégal on va essayer de voir fais ceci fais cela. ok ok y a un Camerounais je le remercie euh, da toog des heures et des heures bi son bi génnee. Mhm. juste extrait bu ndaw boobu. Mhm. di ko Alain il s'appelle. Mhm. di ko balancer un peu partout en Europe man son bi dañ ko def ñu def studio bi ñu mixé ba pare may toog di déconner avec une très petite vidéo ma jël man a grand yoro ñu tooñ. ma balancé ko sama statut WhatsApp. Mhm. boom c'est parti gars yi jël ko sama statut WhatsApp et ça fait tour des réseaux sociaux. Ouais. man je me lève un bonjour taal sama connexion WhatsApp am ay message yu dul jeex. xaw ma fu jëlee sama numéro. <laughs> est-ce que comprendre. ma ñëw gars yi topp ma way son bi son bi son bi donc c'est-à-dire ñu ngi def son bi amoon nañ ci yaakaar. Mhm. mais maanaam période bi mu ñu songee. Mhm. ñun pour man dinañ ko génnee dressé benn plan de com jox ko ñi et tout ça mais ndekete vidéo boobu mooy def le tour du monde. boobu raw na boobu dem na c'est fini en tout cas da nga euh, Didi dafa yor dafa am label da nga nekk si label. nekkuma ci benn label. nekkoo ci benn label. depuis le début. Mhm. maa ngi bossé en solo. Mhm. jusqu'à un moment j'ai bossé avec Bams. mooy bi ma nekkee ci le truc. R&B et tout ça néegu rap music mu nekkoon suñu grand bu ñu doon accompagner mhm. voilà da ngay ñëw studio def prise de voix clip vidéo yooyu yëpp sama vidéo yi ma doon def sur le style bi yëpp moo ko doon def et que je remercie au passage mhm. mais en dehors de Bamsi y a personne y a personne derrière joobuma kenn et tout ça mhm. ñu bari par exemple ñu ngi naan ma wooy euh, ci labelu Yoro nga nekk parce que da nga ciy gis même des animateurs ah da wax ñoom ñun la waxal Yoro na ma woo parce que vidéo bi nga def ak Yoro la aussi. c'est ça voilà. parce que grand mm-hmm. Yoro sama grand la. Mm-hmm. un grand que j'admire beaucoup. Mm-hmm. yàlla def na comme par exemple bi may ñëw les deals des hôtels et tout ça moom ku ko xam-xam ni c'est ça c'est deal. waaw moom musique am peut-être même bu ko ñi di dul gisul muy présent carrément ci scène musicale bi comme fii Sénégal. li ñu am habitude fekk ñu ngi lay gis ci télé bi yaay moom il joue tout le temps. il joue tout le temps et en temple plein toute l'année. toute am na public am bu classe ak yeneen ak yeneen yu koy fekk si. yu koy fekk si donc su ma doon joué man tamit ma ñëw j'ai eu la chance ñu présenté ma ko et tout ça ma ñëw mu tamit doon grand bu ma yaatal xam su ma ñëwee parfois mu lonki guitare am jox ma may ma fit. ma joué et tout sax ba bi ñu amee collaboration ci projet sunu folk bi. Mhm. mu woo ma. Mhm. ne ma damay def benn projet sunu folk yow ak d'autres artistes. ñu commencé job ci projet boobu. par la suite di ñu nekk studio man tamit ma ni ko am na benn son bu ma bëgg a def. Mhm. parce que yàgg na ma koo xam ah, ne ma bu ma monté sama label yéen ñëpp incha allah dinaa leen ñëw ngeen ñëw xam nga. am lu def am lu ngeen def. ma ni ko am naa sama benn son muy luccum luccum bi ma ñëw indi sama son mu toog ma wan ko mu intéressé ko ñu def son bi et ça a pris. macha allah macha allah. Euh, tey su ma la laajee musique sénégalaise. comment elle se porte est-ce que ñu ngi dox su amee loo si naqari lan la. je pense que comme tout artiste tey le rêve de tout artiste sénégalais. Mhm. mooy mm ah selon moi le rêve de tout artiste sénégalais c'est d'apporter benn pierre à l'édifice muy lan fi suñu papa yi teg musique bi fi ko suñu yaay yi yóbbu suñu tata yi suñu grand frère yi suñu grande sœur ñun ñu ñëw yokk ci li ñu liggéey. absolument donc tey ay disque d'or jooy gën na dugg Sénégal. waaw waaw c'est pas normal bu ñu waxee te dëgg moom. non dañu waxante dëgg rek c'est-à-dire gis nga mooy li may wax boo jaaxaanee di saw naxoo kenn sa bopp ngay nax. xam nga mhm. tey euh, mooy li may wax le deal c'est pas nous entre Sénégalais. Mhm. concurrence bi du entre ñun. et le business c'est pas que dem Grand Théâtre yow yaa dem grand théâtre boo xamante ni da nga ñëw maire koñ bi ministre bi ñuy jëndal la ticket yi jox ko nit yi nga yab leen ci ay bus ay car rapide nga dajaloo ñëw ñu toog say waa kii ñu tàccu la nga ñëw ni feesal nga grand théâtre mais naxuloo kenn mhm. sa bopp ngay nax c'est sa bopp ngay nax tey je pense que war nga mën a liggéey loo xamante ni affaire yi dootul nekkati ay comme li fi xew léegi mhm. na say mbokk jóg nañ la sotle et tout ça non non non liggéey dafa war a nekk liggéey boo xamante ni da nga koy liggéey nga convaincre déggoo gars yi naan nul ne prophète chez soi. loolu am na. au contraire parce que nit ki li jege sa bët kiiraay lay doon. doo ko gis doo ko gis. mais il faut que nga dem tey damay am fierté bu muy toog di gis Fada Freddy yi. Mhm. damay kontaan tey damay toog des fois bu ma toogee sur le net ma dugg ma xool gis ay yenn réalisation yu ñoom papa Youssou Ndour def mais nga déglu seen musique démb. ak tey ya avait pas le marimba y avait rien mais da gis ci ay normes lañ koy teg. Mhm. je joue avec des étrangers souvent ay béninois ay ñeneen ak ñeneen ma da ngay ñëw gis nga bu ñu la jàppalee musique sénégalaise. Mhm. bay relever ba lay relever ay classique yu ay ñoom tonton Habib fay doon joué ak yeneen ak yeneen di dawal. Mhm. mais dañ naan la non mon frère lui c' est le meilleur c' est le meilleur. kon nga xam ne gars yi yàgg nañ nekk. c'est ça parce que boobu am na influence musique cubaine salsa. salsa ñëw ay ñoom suñu maam Laba Socé ñeneen ñi am fi ay disque d'or ak ñu xëccaale ko paa yi doon jouer salsa léegi bi ñu commencé mbalax ñu koy def salsa mbalax mm-hmm. mais da gis il y avait pas le truc de marimba mais musique da doon am ay normes yu muy respecté kii fu mu war a way mm-hmm. instrumentiste fu ñuy euh, exprimer woo partie temps foor yi temps faible yi nuance yi ku nekk nga dégg lu muy jouer mais léegi je peux pas comprendre na nekk ambiance rëmbax papax mu dem certes am na ñu mu neexa ah, parce que ku nekk ak li la intéressé ci musique du sori mais fii lay yem. du sori. tey les Nigériens dañu jël parce que musique day dox. day dox we making business. Mhm. showbiz lañu wax. showbiz bi il faut que artiste bi du temps je te exemple bu gën a ndaw. Mhm. son yi gën a buzz ci àdduna bi. ay lan la Opa Gangnam Style. oh oh oh oh oh Opa Gangnam Style. qu'est-ce qu'il dit là-bas. Mhm. si on comprend pas le Gangnam Style mais le oh. oh mm-hmm. wala ay the thing that tërra mm-hmm. pop pop pop pop boom mm-hmm. Drake instant yi moo ëpp lu muy def le roi des streaming lan lay way kii kii waaye waane eh, mais lan la parce que ça se joue sur des mélodies ci composition musicale bi même li ngay wax tey si c'est juste des mélodies que tu fredonnes mais c'est cool a écouter à l'oreille. du la bouger du la sonal ça te fait bouger ça te fait danser ça te fait rêver ça te fait voyager. day universel. Mhm. léegi kon pourquoi ñun ñu bëgg a renformer mhm. ci lan na <laughs> diw di woy sa baay. Uh-huh. man way naa diw. nga faire tourner un morceau. Mhm. plus de vingt minutes. non stop. Ah ouais. sur quatre accords amul variation amul dara. Mhm. su amee luy varié musique mooy lan nga way ba daaneel percussionniste yi bàkk. nit ñi fecc def giis. rëmbax rëmbax mhm. mu daanu nga jëlaat bàkk naa la doomu ndey kii nii nitu mais bu ñu nax suñu bopp. Mhm. dina neex dinañ ko bëggee mooy suñu culture bu buñ ko xeeb mais buñ bëggee mu génn. ma foog ñu dolli ci leneen. sinon fii lay des. fii lay des bu bëggee mu génn faw ñu doon dolli si leneen sinon fii lay des parole de Didi euh, je pense que ni euh, waxtu mi ngi ñuy xoj sax mais bëgg naa aussi ñëw si si say projet mhm. parce que def nga lu nuccum bëgg na nañu xam également euh, lan la projet album la c'est quoi li nga xam moom moo des wala moom mooy ñëw. waaw euh, c'est un projet boo xamante ni dañ bëgg réaliser benn album. ok pratiquement les titres sont déjà ok. Mhm. donc reste juste ñu xool ban timing moo adéquat pour ñu génne ko. ak nan lañ koy génnee ñan lañ ci am ñu ñu accompagner et tout ça parce que voilà ça demande des mhm. ñu ngi ciy job et tout ça en dehors de Lutchoum Lutchoum am na beneen single bu ñu war a génne bu tudd Bibi. Bibi c'est aussi une chanson d'amour. Mhm. boo xamante ni bëgg nañ ko jox public bi avant de développer des chansons yoo xamante ay thèmes lay doon tout ça. donc en dehors de ça war nañ teg incha benn show. Mhm. le 29. le 29. Euh, waaw euh, bi pour clôturer. les vacances les vacances en beauté parce que bi lu ci génne ba léegi ñu ngi doon jouer ay show mais c'était juste le même public bi nga mhm. xamante ni moo ñu doon fekk si. parce que Euh, da ngay toog ay king fahad et tout foog nga génn ci quartier yi ñëw et tout ça ma saa non ça va venir ça va venir bon war nañ tegaat benn show il se ñu tegaat ko incha allah au king fat palace waaw euh, le 29 bii mais bëgg nañ te moo am ay port pour que yi gën ci gis seen bopp ñëw découvrir un peu ce que nous faisons en live. en live ah. de façon di nga si ànd ak euh, GRM euh, Dakar Info point net Dakar 92 point com également. Ah, ak Gal 220 Gal Sen 221. Mm-hmm. Euh, li ma bëgg aussi tamit ñu nga wax ma moom mooy. tey jii bu fekkee ni tey jii am na lu la loo mos a dund ci musique bi lu la naqari lool lan la. est que am na. non je pense que comme tout jeune artiste ah bari na je me rappelle euh, bërki dem rek bi ñu demee joué ji. bi mu mm-hmm. ñibbisee j'étais tellement énervé parce que euh, tey euh, je pense que les Sénégalais dañuy xaw a fàtte benn affaire. aduna mm-hmm. dara xëyul sotti. te tey voilà man je demande pas kéemandewuma. Mm-hmm. tu vois tey benn amour la ñu am muy lan musique. ñu bëgg ci te mën nañ ci jariñ réew mi donc tey je pense que en tant que sénégalais li ngay soxla nit ki lépp looy def soxla nga ñu la ci épaulé absolument jàppale la mais même bu ñu épaulé wul mu bañu doon ay bras de fer wala ay gangi su roche mhm. parce que parfois da ngay gis pour nga génn fi dara fi Sénégal boo nekkul ci label doo doomu diw amoo fenn ku nekk sa ginnaaw wala dara c'est tout un problème mhm. pour que nga faire passer yow li nga bëgg a def man je non nañu jël n'importe kii parce que je pense que danga war a mériter dara muy la liggéey mhm. nga liggéey dara sénégal yi gis ci seen bopp mhm. buñ ci gisee seen bopp parce que ce que tout le monde aime t'as pas besoin pour di ko forcer ñin wala dem teg leen ma mhm. j'ai pas besoin de sa okay. mais au moins tey boo defee benn affaire wala nga nekk ci benn euh, dynamique pour faire la promotion mais nañ la ko faciliter quoi mu bañ a doon yow bokkoo fii ki nekkul sa ginnaaw wala lii lii après dafay metti donc euh, moom mooy cri de cœur bi. mooy cri de cœur bi en plus c'est-à-dire euh, pour nañu na Sénégal yi bëggante seen bopp. mu sincère. c'est c'est c'est très important c'est-à-dire man je pense que nous notre problème sénégalais. Mmh. Euh, c'est l'hypocrisie et l'égoïsme ñu baal ma ci terme yi euh, en quelque sorte dañuy bàyyi suñu égoïsme mu ñuy développer c'est-à-dire le sénégalais n'a pas cette culture de nous. on a cette culture de moi man man man man te loolu moo baaxul da nga gis bañ na ko li nga xamante ni jàpp na ni moomu ko ñun ñee ko bokk sax da nga naan bu ñu kenn rey alalu ñëpp la alalu ñëpp la parce que yaa ngi comprendre da ngay dëkk ci kër nit ki ñëw man su ma yeewoo dinaa defar sama nekk lal ba mu baax génne li may bale sànni ci koor bi keneen jël ko def ko parce que jàpp na ni kóor bi yëpp ñun ñoo ko bokk et tant que culture boobu ñu ngi koy am les culture de jeu jeu duñ mus a ndax instant bi ba fi nga toll nii carrière bi ñu ngi ñaan mu yokk lool lool lool lool lool lool ba ñuy am ay disque d'or ak yooyu na ah. yàlla bon na ko yàlla na ko yàlla def si barke sang-sang yi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam et est-ce que amagum nga lu la neex loo dund si musique bi bari na le fet que ma toog nii rek du jeu sa me fait plaisir man la musique à chaque fois ça me fait rêver ça me fait voyager des fois ma toog mer wala dara ma jël sama guitare wayantu et tout ça et des fois ça fait plaisir da ngay toog xale yi woo téléphone wayal la wala mu ñëw toog di nelaw xale yi ñëw fëgg ma ça fait vraiment plaisir uh-huh. sérieux wala nga romb yenn maire yi wa ah sama doom li yëg sa ça plaisir même bu dul dara quand je suis sur scène quand je m'éclate et que je vois que ni nit yi ñu ngi éclaté wu daf may neex day neex ci sama xol en tout cas dégg nga sànq euh, l'une de mes fii bébé maman Soso mu woy la lucum lucum. voilà et puis du moom rek ah donc les jumelles Mam Yaram Adja Rama ah, ak euh, bébé Khadija en tout cas loolu la mooy fierté tamit euh, Sénégal mooy fierté tamit euh, fierté ñëpp nga. Mhm. ndax loolu tamit dafa neex aussi. Mhm. moo gën aussi tamit bu mooy loolu daal en tout cas nañu yem foofu. merci quand même et le mot de la fin. waaw d'abord di kontaan encore une fois di la remercier ci invitation bi parce que tey c'est pas aujourd'hui que laa la xam. que nga nekk ci ay télé ay euh, rajo vous avez été très réceptible bu yenn gars yi ñëw même bu dul dara parce que xam wax ju neex rek. sarax la tey nit ki mën nga ko bañ a may dara. Mhm. mais un jeune. Mhm. il faut que nit ñi comprendre loolu. Mhm. tey nit ki bu bëggee mënoo jóg rek nga parfait. c'est impossible mais bu xale bëggee dara. mu jaral ko muy sonn man ñaata yoon laala ñëw fekk si. dëgg ñëw fekk la wal feuille tout ça wala dara ñëw yëkkati ne la lii de laa génnee dëgg parce que ci ngay jàng àdduna doo yem ci benn stade. même conseil bu ndaw waa booy dinaa nice mais gënal góorgóorlu dafa lii waa góor day yokk ngóor mais da nga gis des fois des gens tu viens c'est-à-dire ils jouent l'intéressant devant toi et non seulement dañuy abattre nit ki parce que ñëpp bokkuñu dëgër bopp am ñoo xamante ni tu les fais tu les abats dañuy arrêté mhm. te amaana peut-être buñ puusoon nga buux leen tuuti mhm. may leen fit ñu gën a liggéey mën leen jariñ jariñ la jariñ réew mi mhm. donc pour loolu ñu bàyyi ci xel beneen affaire euh, di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñun ñuy seetaan mm-hmm. euh, di remercier tout Sénégal ak àdduna bi worldwide di mm-hmm. ñaan yàlla jàmm sax ci Sénégal amiin euh, di wax ni lépp lu ma fi wax lu ci dëng mm-hmm. dama juum ñu jégal ma ko lu ci jub du ci man suñu boroom la peut-être sama gis-gis wala sama déggin xëy na moo yem foofu moo tax ma waxee noonu di ñaan yàlla dolli sutura. amiin yaa rabbi di remercier tout tout toute l'équipe qui est derrière. merci beaucoup. sama fans yi nga xamante ne dañ ma bëgg a créer un partout ci àdduna bi des groupes WhatsApp di ma call di ma bëggee foo tëggee ñu déplacé wu ñëw di remercier staff bi waa Global Melo Business yi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw di ci jàpp ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi jàppale Diaw Diop de près de près ou de loin ñi ma xam ñi ma xamul di leen wax ni I love you di sàkku ñaan ci ñoom pour ñun li ñu bëgg li ñu yéene Sénégal ñu gis ci seen bopp. le prochain single c'est pour quand. pour bientôt incha allah. kale na ba pare. ban genre musical lay doon. bon ce sera encore du mbalax. comme comme comme boo xoolee ba tey même mbalax bi bi ma def da nga ciy sentir beneen beneen beneen discipline. beneen style beneen style tey bëgg naa tamit indiwaat c'est-à-dire l'idée pour moi c'est de faire passer le mbalax. parce que man je suis contre les artistes qui qui disent que non mbalax du dem fenn gëwma loolu mën na dem fenn mën na dem feneen fu fii mais il faut juste savoir nan lañ koy adapté Merci beaucoup euh, Didi. On va terminer avec un morceau, le Tchoum Tchoum en acoustique. Le temps que euh, Tagou, nos internautes, déjà Diéfol également, Omzo, du côté de la réalisation, et toute l'équipe derrière, merci beaucoup. Euh, di euh, dédicace nak euh, Didi Siep, nous di bégué. Voilà les fans de euh, Didi, merci beaucoup. Et à très bientôt, c'est bien le numéro Yai Buzz, parti, le Tchoum Tchoum version acoustique. Que c'est mooy sa làccum làccum ku am sa chéri boy danga koy waayal maa la bëgg piir moo tax ma lay waayal ku am sa chéri boy danga koy waayal maa la bëgg piir moo tax ma lay waayal sama chéri yaay sama chéri om so kuy sa chéri feres fii laa la bëggee ci digg gër ñi xam nga fii laa la aimé foo jaar dama lay wane fii laa la ci digg gër ñi xam nga fii laa la aimé foo jaar dama lay wane yaay sama chéri nit ki soo ko bëggee danga koy wane man mi ni ma la bëggee foo jaar dama lay wane ni ma la bëggee nii laa la koy wane eh yow yaay sama chéri ndax ma ni ma la bëggee ku mu neexul dina sonn fatigué chéri yaa ma gënal kaay dugg wàcc na ni ma la nobbee ku mu neexul dina sonn fatigué ndaxte yaa ma gënal kaay dugg wàcc na yaay sama chéri fere sama banana sama kooku mandarin chéri na moo dara yaay sama lëccum lëccum sama lëccum lëccum te saa suñu wéete yaa may tax loo sóoratul ah astafurlah bay ma mën a pi bala yaay di ma dégg ma risqué te ko pi dama naan la doxantu si kaa nga doxantu si dama lay wane foo nga doxantu si yow nu la neex ngay nga danga rafet yow nu nga danga mignon kuy sa chéri Férès mooy sa banana sa kooku mandarin sama lucum namul dara moom mooy suma chéri lu la neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko loo bañ bëgguma man te loo bëgg bëgg naa